asalaamualeykum ziar ak màggal yéen ñëpp ñi di déglu ak di seetaan Kif TV télé ki fi nekk ñu ubbee yéen yi fas yéene leen wax li gën a fës ci seen i bopp xibaar tombe ak tey ci altine euh, fukki fan ak euh, juróom-ñeent ci weerum octobre atum 2020 euh, yéen kay yi di sud wax ci promotion trostir bi nga xamante ne jëmewul kanam gannaaw bi nga xamante ne lii di coronavirus dafa daal di laal boobu le secteur moom Diagne Fada ba ñu déclaré lii di campagne correct commerci commercialisation wu wàllum arachide gis nañu dafa laajte li nga xamante ne mooy ab quota ba tax na kooku di Sonko dafa daal di woo ca gouvernement ba ca assemblée nationale Rewmi Quotidien daal di ñuy xamal ni ak Babak docteur Babacar Niang gis nañ ñu bari ci doomu aadama yi dañuy ñëw ak faux test ni amewuñu doomu jàngoro Covid 19 wala ñu daal di jël xaalis daal di koy neexale ñu ne ci wàllum yoon bi pour mu daal di dugg si frontière bi ba tax na kooku di docteur Babacar Niang nekk ci suma assurance moo yëkkati na yooyu kàddu ba tax na foofu ci Guinée yéenekaay yi daal di ñëw ak wax ñu ne gis nañ ni tendance bi dafa favorable ci nga xam ne mooy seetlu direct news daal di yëkkati ay kàddu wax ne ba baro de l'APR zappé ba tax na critique daal di ñëw wax ci Diouf Sarr daal di yëkkati ay kàddu di xam ne ni moom missionnaire la maanaam dafa am lu ko war ñu teg ko pour mu daal di koy joxal libération daal di ñuy xamal ni scandale bu am ci bureau de poste bu Dakar ak Dakar étoile yéen kaay yi daal di ñuy xamal ne waa ji dafa vidé keesam euh, pour euh, ki nga xamante ne mooy ab marabout gannaaw bu mu yëkkati ay kàddu xam ne ko ne ko kenn du la daal di tëj euh, police ba tax na yéen kaay yi daal di yëkkati ay kàddu jàll ci ba tey ak ñi nga xamante ne ñooy migré yi di jël roppalaan di yëkkati ay kàddu naan Barça wala Barça ba jotee ci ñooñu gis nañ ni lu toll ci weerum lëmm lu toll daanaka. si ñeenti téeméeri doomu aadama ak juróom gis nañu dañ leen di jàpp ci yoon bi populaire daal di wax ci Abdoul Mbow ak vérité yi nga xamante ne daal dina koy yëkkati ba tax na moom it ba tey ak populaire di xam ne li foofu ca Guinée kii nga xam ne mooy euh, dalan Dalian Diallo moom gis nañ ni daal euh, moom moo gën nekk daal euh, favori kooku di seetlu ba tax na tribune daal di wax ci confidence yi nga xam ne Macky xëy na daal dina koy amal Barthélémy Diaz daal di yëkkati ay kàddu ci scandale yi nga xamante ne eh, jot na koy eh, gis ko yëkkati ay kàddu jëmal di ci télé bi nga xamante ne mooy Sen TV l'Observateur daal di ngi xamal majorité mécanique ak eh, terrain bu Guinée gis nañ ne ñu ngi ci ab kawo ba tax na foofu ca Conakry bu ñu wàcc détresse tamit ah, daal dina fay judd bu baax gannaaw bi nga xam ne lu bari ci seeni liggéey dañ koo daal di dénkoon fi nga xamante ne mooy fii ci suñu réew ba tax na doomu jàngoro bi dafa daal di yàq seen commerce bu baax a baax kooku di Aïda Goudia bi nekk chef de quartier foofu nga xam ne mooy si cité Mixa gis nañ ni doon na jigéen bu mën góor gannaaw bi nga xamante ne bu ñëpp di nelaw ma ngay xëy di xool quartier am di développé ba pare di ci liggéey di jàppale doomu aadama bu baax a baax continuer ñëw ci Cissé loo daal di xamle moom suñu njiitum réew ne xaritam la waaye tamit mun nañ ne euh, mbokkam la doomu jaay wala doomu bàjjenam maanaam nekkul nit ku tuuti si moom ah, gannaaw bi nga xamante ne yéenekaay yi dafa ñëw ak ñun ah, di yëkkati ay kàddu di wax ne kooku di Alioune Bamboura dañ ko daal di accusé gannaaw bi nga xamante ne kii di Abdoulaye Daouda Diallo dafa nekk ca ginnaawam ba tax na Walf Quotidien wax ah, ci Khalifa fa yéene naa de retour de force ci langum politique bi Alpha Condé ak seetlu gis nañu daal euh, seetlu moo gën a nekk euh, favorable affaire yi ñu moytul dina daal di fatal ba tax na licence euh, de pêche chinois gis ngeen ni Alindo dañ ko daal di dugal ci biir maanaam yéen kay di xam leen ni bokk na daal ci ñu ñu tuumaal Macky Sall dal di ñëw ko ñun euh, moom laas ñëw ak ci suñu njiitum réew Macky sàll ay kàddu di xam leen ni moom mi ngi fay bor bu toll si daanaka ñetti ñetti junni jàpp ñeenti junni milliards yi nga xamante ni suñu njiitum réew yaa woon ñoo ko fi daal di bàyyi ku si mel ni Abdou Diouf ak ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Wade ba tax na. moom yéen kay daal di xamal ni mag mareyeur yi ñoo doon bokk yi ki nga xam ne mooy Abdoul Ndoye maanaam ñoom ñoo doon ñi nga xamante ne ñoo koy sàmm gannaaw bi nga xamante ne ñu ngi koy takkal ci ay affaire de licence euh, de pêche ba tax na moom yaanamaar gis nañ ni dafa amanko ak Guy Marius euh, Sagna pour fas yéene rejoindre marché bi nga xamante ne la ñu marché bi ñu war a xeexi ki nga xam ne mooy Abdoulaye Dia enquête daal di ñuy xamal ni présidentielle euh, Guinée gis nañ ni euh, ak tamit euh, Côte d'Ivoire ñoom it tamit gis nañu ñaari pays yooyu daal.